asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu mbokku chaîne chaîne bi ngeen bëgg muy def gis TV télé bii di def ngeen di gis man Pape Ousmane Ba may addu yéen ngeen di teewlu maa ngi leen di bëggee bu baax di leen wax ne nag ba léegi di leen abonné gis nañ it ni ngeen jàppee chaîne bi saa ne yéen a ngi xel ci waxtaan yi nga xamante ni moom lañ leen di defal tey nag ñu ngi déplacé wu fii ci Yoff biyaa gi ñëw fekk fi nag ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté Sénégal kooku kan la taalibe aqan macha allah ñu koy wax Khoureychi Thiam mu nekk l' international sénégalais di def basket nit la koo xam xamante ni bu àddoo yëkkati kàddoom rek da nga xamante ni kii wax xoluwul dafa xelu euh, kooku nag mooy Khoureychi Thiam nekk nag soppe lool ci Cheikh Bara Ndiaye borom def gis balaa ñu koy bàyyi mu wax digganteem ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis dañ koy jox kàddu gi d'abord mu nuyoo ak mbokk téléspectateur def gis TV télé bii di def ngeen di gis après nañu ak ñu agsi nag dugg ak moom ci waxtaan bi waaye jàpp leen ko de tey dara du yomb ak ki nga xamante ni moom mooy Khoureychi Thiam Khoureychi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatu maa ngi leen di dellu ziar. waaw maa ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Sénégal yéen waa diaspora bi yéen euh, nga xamante ne yéenay bëggee waa Def Guiss TV maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen ndokkeel si weer bu sell bi weer bu tedd bi ñu nekk muy chahru ramadan bi ñu nekk you know nga xam ne weeru yërmande la waa di si ñaan suñu borom. lépp luñ ci jaamu mu nangul ñu ko mu jéggal ñu suñu ay njumte yu njëkk suñu ay njumte yi ñu nekk ak suñu ay njumte yi nga xam ne mooy ñëw ci suñu dund giiru dund te laabire ñu te yokkal ñu sutura bi sargal ñu sagal ñu ci lépp lu ñuy dugg lépp lu ñuy def waaw maa ngi leen di nuyu bu baax asalaamaaleykum jërëjëf di bëggee waale bu baaxa baax it mbokki Touba Mbella TV ndax ñoom it dañuy ànd ak ñun di bëggee waa Pop TV ñoom it dañuy ànd ak ñun si li nga xamante ni moom la ñuy def tey jii bu ma bëggoon rek balaa ñuy commencé laaj bi ma laaj la biographie bi kan mooy Khoureychi Thiam. Ah, maanaam est-ce am dina am solo sax ndax damaa xam ni nit ku nekk li nga doon du loolu am solo waaye ci ni la yàlla. suturaalee ba def la nit ba sàkk la yónni la ci àdduna parce que kenn ku ci ne danga am mission dama gëm ni li ngay def ak ni nga koy defee ak fi nga koy defee mu ëpp solo li ngay yenu ni maa ngi koy def donc li ma doon man dama jàpp ni amul solo waaye dafay baax yenn yenn saa it nga expliquer tuuti parce que tamit lépp ci suñu borom la parce que bu la cëralee da da ko ciy sar da nga ci da ko ci da ko ciy sargal rek waaw da ko ci sargal da ko ci sant mun naa ne sax sant parce que suñu borom sant ko moo gën sax sargal ko waaw nañ ko ci sant bu wér a wér waaw man nag benn ndongo laa bu ndaw waaw euh, juddu fii di Sénégal di doomu Sénégal ci ndey di doomu Sénégal ci baay di doomu Sénégal ci ay maam waaw donc euh, di doomu Amadou Lamine Thiam di médecin sportif nga xam ne def naa ni Sénégal ñu bari xam nañ ko Amadou Lamine Thiam moom mooy mën naa ne premier médecin sportif bi nga xamante ne moom moo yore woon équipe nationale yëpp fii nii Sénégal équipe nationale yëpp yoroon na handball bi basket bi football bi ak yooyu yëpp donc boo xoolee Caire 86 bi ñuy wax sama papa mu ngi woon foofu moo doon médecin bi boo xoolee si làmb ji. Euh, ay ñoom docteur Alioune Sarr ay ñoom xam nañ ko ñu si bëri ay wëllëree lañ woon wala ay élève am lañ woon ñu si bëri jaar nañ si ay loxoom. waaw boo xoolee Ardo. lu tax ñuy wax Ardo. ci su ma juumul. ci niñ ma ko tegtalee niñ ma ko waxee. mën naa juum nag waaye niñ ma ko waxee ni ma ko déggee bu amaan ku blessé ci jamono yooyu bu amaan koo xam dafay blessé wu moom bu la saytoo ba pare daf la naan dem yóbbu leen demal ci Ardo. mu defal la soin léegi demal ci ardo boobu mu indi dem na ardo waaw ba tey ji nag ku ñu blessé rek ci lutte bi rek bu jàppanteeg sa ki ngay jonganteel bu la gaañee ñu ne dem na ardo waaw loolu ci sama papa la jóge dem na ardo boo xoolee ñoom Moustapha Guèye ay athlètes yu bari ay ñoom duubalees yaa raxma ñu si bëri jaar nañ si ay loxoom ñu know ay ñoom manga de ñoom ñëpp xam nañ ko donc kook mooy sama papa waaw ci sama yaay mooy Ndeye Astou Sarr waaw moom ancienne joueuse la joué na équipe nationale du Sénégal moom moo nekkoon capitaine équipe nationale du Sénégal donc joué na te gagné na Coupe d'Afrique fii nii biir Sénégal indi nañ fi ay raay yu mag a mag si jongante basket bi. joué na ak ñoom Kankou Koulibaly ak ñoom Aya Traoré ñoom Mampenda euh, Diouf ñoom euh, Laari Gueye ñoom Koumba euh, Dikel Diawara. ñoom ñoom si même génération boobu la donc euh, si côté boobu kooku mooy sama yaay moom mooy euh, instant bi moom mooy directrice Claudel cité Claudel waaw moom kooku mooy sama yaay waaw donc euh, su ma mënee wax ci juddu ci biographie juddu foofu la waaw man nag ñu ngi may dàkkantelee Khoureychi Abdoulaye Thiam waaw Khoureychi Abdoulaye Thiam donc Khoureychi Abdoulaye Thiam laa tudd. juddoo Sénégal màggee Sénégal yeroo Sénégal jàngee fi ba am sama raaya samay lijaasa fii nii ba ma am sama baccalauréat donc bi ma sama baccalauréat si laa dem États-Unis si laa am opportunité ci kàttanu suñu borom ci mbaaxam ak yërmandem mu dimbali ñu dimbali ma ba ma mën a dem États-Unis jàng foofu basket foofu au plus haut niveau joué yi si bi ñuy wax NCAA. def naa fa euh, sama ay euh, sama ay pas foofu noonu foofu laa joué ba gradué foofu tamit am samay lijaase tamit jàng naa foofu def naa business management ak euh, relation internationale ak communication internationale donc jàng naa ba am samay diplôme foofu noonu donc parce que boo boo gisee ma koy wax c'est parce que ñu bëri dañuy naan sportif yi jànguñu hmm? <laughs> dañu naan sportif yi jànguñu dañoo topp sport bi topp sport bi rek te lu tax ma wax loolu parce que dama bëgg Euh, ubbiwaale fenêtre boo xamante ne parent yi nga xamante dañu am seeni njaboot yi nga xam ne dañuy def sport buñ leen si découragé nañ leen si encouragé parce que sport dafay tabax nit hmm? te sport surtout sport euh, bi nga xam ne collectif la daf lay dimbali nga mën a bokk nga mën a dund en communauté nga mën a dund en société parce que tey ji boo xoolee basket parfois di nga am opportunité dugal nga gis ko la gën a jege cerceau bi nga paas ko mu dugal boo xoolee bu ñu lay nota bu ñu lay defal notation si basket ki dugal c'est bien mais ki passe mu dugal c'est très bien waaw. voilà donc te boo xoolee loolu mën nga ko mën nga ko translate ci mën nga ko yóbbu ci dund dund yi nit parce que boo xoolee tey jii nga dëkk ci kër di rosi rosi bi di xeeñ mm-hmm. amaana am nga dëkkandoo boo xamante ne ci ntàkkul waaye dafay baax yenn saay ngay yërtu wala ngay gëstu ñi nga xam ne da leen a tane waaw du la wàññi dalay lay yokk parce que rosi boobu rek àq la ndax bu ko xalaatee nga koy lekk te mayoo ko ci àq la hmm? donc tey jii nga xam ni tane nga ko nga dimbali ko du la wàññi waaye ki ngay dimbali suba mën nga mujjee ci ay loxoom waaw mën nga mujjee ci ay loxoom voilà donc. da lay jàngal partage da lay jàngal bokk parce que jël joxe yombul waaw boo xoolee dañuy la wax chaque sax li ngay maye da ngay seet li li nga gën a bëgg nga maye ko fa metti te nga jënd sa yër alaaji bi ba mu rafet nga ñëw ko ba mu rafet mu ñëw ne la man bii nag bëgg naa ko nga ne yii non bii moom Pa Ousmane bëgg naa ko da nga maanaam déet am naa bu màgget déedéet bu ñu leex mayee da ngay maye li nga xam ne bëgg nga ko waaw parce que ki nga koy may ni muy seddee sa xol yow mi ko jënd noonu la war a seddee xolam moom mi ngi koy may. Hmm? donc loolu mm, juste parenthèse la woon rek pour gën a encourager waajur yi ñu inciter seen i njaboot ñu def sport parce que dina leen ubbil yeneen brèche lu yu bokk ak leneen lu bokkul ak sax sport bi kese parce que sport bi rek moom jëmmi sport bi rek mën na la indil ay opportunités yoo xamante ne sa doom mën na jàng ci école bi ba pare ba yëy ay lijaasam te li muy am ci benn bëccëgu sport de niveau du ko mës am ci dundam yëpp waaw da gis tey jii macha allah benn Sadio Mané wala benn ah, Idrissa Gana Gueye wala benn Gorgui Sy Dieng wala benn keneen ak keneen ak keneen li muy am ci benn bés macha allah wala quwwata benn li muy am si benn bés da ngay gis fonctionnaire boo xam da koy liggéey toute sa carrière du ko am te loolu wërsëgam la. mais wërsëgam xol fi ko yàlla jaarale ci tàggat yaramam ci daw ci tëb ci daanu ci jóg entraînement sonn sacrifice yooyu yëpp nga xool koo xamante ne yaa ngi koy xañ loo xamante ne amaana sa wërsëg la te mën na la ci dimbali mën na ci dimbali njaboot gi mën na ci dimbali boppam it donc nañuy inciter à sport étude dafa baax te daf lay dimbali ci sa jàng tamit parce que boo xoolee États-Unis tey ji boo bëggee sport au plus au niveau foog nga jàng. ci obligé nga jàng soo jàngul munoo munoo ko def sport bu mu mënti nekk la tout sport confondu. kon maanaam ñi nekk NBA yëpp ñoom ñoom dañoo jàng. ñi nekk NBA yëpp sans exception kenn ku ci ne am nga niveau d'étude peut-être dañuy rawante ci niveau d'étude yi ak li ñuy jàng dafay différent mais am na benn minimum base boo xamante ne d'étude foog nga am ko ci obligé boo ko amul munoo fa dem parce que déjà pour que ñoom ñu mën la adapter si ñoom ci seen zone. ñi nga xam ne jóge États-Unis parce que mën nga ñëw ci biir NBA ñu jëlee la beneen réew mën nga bañ jàng mën nga bañ a ki peut-être ñooñu mais ñi nga xam ne ci institu institution wu américaine yi lu ñu génne ci école u daara yi euh, américain yi lu ñu génne dañ leen di euh, tàggat ci njàng parce que loolu dafa am solo ci nit parce que da dimbali ëllëg parce que sport bi tamit mën nga ci am lu ne waaye mën nga ci ñàkk lu ne hmm? parce que tey jii ci benn jongante mën nga ci am blessure boo xamante ne daf lay sacrifier tout ta vie waxuma la ci sport bi rek mais dalay lay sacrifier sax ci sa vie sociale dalay lay sacrifier sax ci sa njëriñ yow en tant que nit ci sa askan. parce que nit ku nekk ñaan nga yàlla am njëriñ ci sa askan. Hmm? donc tey ji jàng boobu da lay dimbali ni bu ëllëgee boo defee sa sport ba à un certain ba sa yaram mënatu la may la mu la doon may pour ngay def benn performance bu lay permettre nga mën a toujours rester au haut di nga mën a am beneen réinsertion sociale c'est-à-dire di nga amaat beneen njëriñ ci sa askan boo xamante ne bu bokkul ak sport bi nga daan def hmm? te loolu jàngul tari moom kooku moom du ay waxi du du wax waaw waaw donc foog nga jàng loo xamante ne métier walla xam-xam boo xamante ne dina la mën a jëriñ si sa dund après sport te dafa am solo mais tamit da lay permettre li ngay gañe ci sport bi muy ay raaya muy alal muy ay relation su fekkee ni xam-xam bi sorewul torop mën nañ la nax waxuma duñ lay nax mën nañ la nax parce que c'est pas que ni da nga war a jàng rek pour egg au niveau non mais jàng dafa baax parce que yàlla dafa ne ne iqra bismi rabbika allazi xalaq loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar la ko ci jibril alayhi salaam donc jàng iqra da war nga war a jàng donc jàng amul àpp donc man dama gëm ni jàng moom alaa kulli haal nit ku nekk war nga jàng waaw yaa xam looy jàng kii day jàng bale kii day jàng togg kii day jàng na doon loo xamante ne doo ci am kersa bés boo jàkkaarloog suñu borom mais loo xamante ne mën nga ko mu mën amal njëriñ après sa sport waaw donc jàng moom ak sport ànd nañ te damay incité buy jur ñu dimbali seeni njaboot yi ñu dimbali seeni ay doom te dina la dimbali tamit si beneen fànn boo xam ni ñu bëri dañ koy bàyyi muy sécurité xam nga boo xoolee léegi Sénégal ñu si bëri ñu ngi wax problème mu sécurité dafa am ak mais man je me ni sport mën na la dimbali si lu bari ci sécurité xamul tax parce que tey jii xam nga xale bi nga xamante ne dafa dem entraînement dafa jóge école wàcc dem entraînement entraîné ba 19 ba mu ñibbisi kook nga fa ne dina tal génn si biti di agressé kooku nelaw lay tal. ki nga xam dafa xëy fajar dem entraîner war a dem jàngi nga fan ko dina am temps di kar di sàcc wala di pickpocket du ko am te ci kaw sport boobu mm, da ko occuper donc temps bi mu doon def ci mbedd bi di jàng jikkoy mbedd mooy l'éducation de la rue bi nga xamante ne bu baax parce que éducation de la rue am na bu baax am na bu bon mais éducation de la rue bi nga xamante ne bu bon bi te ji su fekkee ne sa jot dafa jafe kooku waxuma ni bon dina la jege de waaye di nga ko sori lu bari balaa mu lay dab xëy na mën yàlla mën na la suturaal ba nga rëcc. Hmm? donc loolu day dimbali waajur juri waaw parce que sport dina la dimbali dina occuper sa njaboot si loo xamante ne moo gën a sell kët nekk ci mbedd bi ndax tux mën na la fa fekk sàcc mën na la fa fekk wuruj mën na la fa fekk def lu bon mën na la fa fekk dugg sa la yoon nekk mën na la si fekk wala def loo xamante ne ku la ci fekk am kersa. waaw donc nañu gën a inciter xale yi ñu def sport parce que am na solo lool. macha am na solo euh, jàpp jàpp leen bu baax a baax a baax li nga xamante ne wax na leen ko vous la jeunesse macha allah euh, c' est l' de la jeunesse ndax xale yi nag lay jox kàddu gi pour ngeen jël ko mu nekk euh, ay leçon ci yéen de vie yoo xamante ni fu ngeen dem rek da ngeen raw seen i morom waaye nag balaa ñuy continuer ñëw nag ci Sénégal ak basket bi ak jafe-jafe yi am ci réew mi dama koy laaj nag digganteem ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis lan la ma ci mën wax. waaw ah, Cheikh Bara moom sama xarit la moom waaw moom sama wëllëre la sama xarit la xaw na yàgg nag tuuti waaw te ni ñu xamante yàlla moo ko dogal rek yàlla moo dogal ñu xamante te ba ñu xamante ba léegi awma ci kersa te gëm naa ni amul ci kersa waaw te dama jàpp ni ànd boo gis da ngeen di amalante njëriñ waaw njëriñ gi nag boo koy wax d'habitude nii dañuy foog ne ni nit pour mu amal njëriñ fa mu lay jox wala nga koy jox waaw fa mu lay jox nga koy jox waaye joxante bi su ma ko waxee noonu mooy du am am du alal waaye mën ngeen di sottante xalaat mën ngeen di yokkalante mën ngeen di suturaalante mën ngeen di jàppalante mën ngeen di taxawalante hmm? te man sama relation ak moom foofu la du ci alal du ci am am du ci dara si nit ak nit la waaw nit matul waaye nit a koy mottali hmm? te man dañuy waxtaan si lu bari lu bare bare te xam nga Cheikh Cheikh Bara moom mooy euh, monsieur dimension c'est-à-dire foo ko laal rek mën ngeen waxtaan si lu bari. Hmm? te da ngay gis ni ndongo daara la waaye nongo daara bu yeewu la macha allah te yàlla may na ko xam-xam boo xamante ne ci àdduna boo xamante ne yenn saa sax man damay xool ne moo amee Cheikh Bara yow kon boo jàngoon tey. ba ay université kon. mu gàtt. waaw macha allah ma macha allah kon xanaa kay kon xanaa kay xanaa kay xam naa ne si si vrai de kàngam kàngam yi yéey seen i kayit ci ngay bokk. waaw parce que vraiment su boo xoolee jàngum nasaraanam soriwul lool waaye boo gisee ni muy doxalee ni muy waxee ni muy analyser yu bari jafe-jafe yi am. am am yi am ci dëkk bi muy ci domaine bu nekk nag santé bi politique beeg yëpp boo xoolee analyse yi mu ci def à la fin sax da nga naan wax kii xam-xam bi fan la koy jëlee waaw te loolu moom dama gëm ni may suñu borom la rek. waaw kenn ku ci nekk am na benn martaba bu la suñu borom defal mooy def sa différence yow ak keneen ak keneen da am sa wëy jur sax moo la jur waaye da ngeen di wute. Hmm? da ngeen di wute. waaye loolu yëpp dama koy delluwaat rek ci suñu borom sama diggante ak moom suñu borom laa koy bàyyee parce que boo xoolee suñu diggante moom dafa moom la ñuy wax en anglais dafa healthy healthy mooy dafa sell amul amul lenn loo xamante ne tey jii mën bu ma jàkkaarloo suñu borom dinaa ci am kersa sama diggante ak Cheikh Bara hmm? donc lépp ay ngëneel la rek waaw donc vraiment dañoo jàppoo comme ay mag comme ay xarit comme ay nit ak wëllëreem waaw te vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla yokk sutura bi yàlla barkeelal liggéey bi muy def yàlla barkeelal ko moom xam-xam bi nga xamante ne yàlla may na ko yàlla na ko yàlla sàmmal yàlla sàmmal ko njabootam waaw te yàlla dëgëral suñu ànd waaw yàlla musuñ ci seytaane bu baax a baax a baax a baax vraiment te maa ngi koy gërëm bu baax di ko di si jaaraa di ko nuyuwaale waaw gàttaay bi nag waxuma ko nag yaa ko wax ndax xam naa xam naa su ma taxawee moom moom xam naa ni boobaa moom moo tax su ma taxaw ma koy xaw a tuuti rek. 1 mètre 45 la. man waxuma ko de yaa wax de <laughs> yaa ko wax de macha allah xëy na nag peut-être ci taxawaay bi dana def 1 mètre 45 waaye xol bi xol bi def na peut-être mu def na deux mètres def na deux mètres macha allah man wax waaw. déet maa ngi wax ci taay bi ci biir xam nga dafa am taay am taay baatin man bàyyil ma wax ci taay baatin bi rek waaw naa wax ci taay baatin bi waaw vraiment macha allah. macha allah en ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kuréel si ñu continuer ba léegi rek ci euh, euh, laaj yi ak tontu yi ginnaaw bi ñuy génnee ci relation bi nga xamante ni moom la am ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis TV ah, di ko béggee bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd wér léegi nag dañuy ñëw ci basketu Sénégal tey jii basket Sénégal gis nañ ni bëri na jafe-jafe lool gars yi ñuy wax si suuf fédération bi coow li bëri na équipe bi war ñu ko def nii entraîneur yi ku ñëw dem ba basket Sénégal ban problème la am. waaw mais est-ce que gis nga lu amul problème ci àdduna bi. basket bi bëri na waaw mais est-ce que gis nga lu amul problème. ci football bi football bi Aliou Aliou Cissé rek a fa ne mais basket bi gis nañ fi Boniface gis nañ fi Adidas mais benn entraîneur du ñëw toog qu'est-ce qu'il y a. waaw ñëw toog kenn ñaanu ko yàlla ndax dama gëm ni àdduna àpp la rek lépp ci àdduna loo gis waxtu la moom la ñuy wax eugène bu jotee dafay am bu jeexee dafay am hmm? man mii di wax ak yow yow mii di wax ak man xam nga ni àpp moo ñu fi téye buñ fi pare matale suñu mission dañuy dem xëy na seen mission moo mat rek. mais nag mais nag du ñu kontaan de ñu ku dem rek da ngay gis mu yóbbaale benn baat bi quoi y' a pas on comprend pas euh, ba pare am na benn pas bu nekk foofu ci diggante bi ancien ancien président bi moom aussi day classe rek moom lu ñu def mu ni baaxul xam nga xam nga ki ma lay wax. <laughs> paa boobu sama papa la <laughs> paa yëpp samay papa ñoom ñëpp samay papa waaw man dama jàpp ni euh, du ma wax sax basket rek di ko. Euh, focal di ko di ko focaliser juste ci basket bi dama jàpp ne euh, tey dafa jot hmm? dëgg-dëgg dafa jot ak potentiel bi Sénégal am hmm. potentiel bi Sénégal am soo gisee ma taxaw ci c'est parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne yàlla daf ñu may lu bari waaye euh, dafa des ci ñun ñu mën ko valoriser. Hmm. parce que boo xoolee potentiel humain dafa am potentiel physique dafa am potentiel économique dafa am potentiel sociale dafa am su ma ko yóbbee ci sport bi on a le potentiel humain on a le potentiel physique mais dafa am yu bari yu manqué loo xamante ne peut-être ñàkk euh, mun naa ne tolluwaay la rek ñàkk tolluwaay bi la rek parce que dañu ne. soo tukkee gis soo gëstoo xam waaye soo tàllalee sa loxo ñaaree am dañ la koy bankloo mbaa ñu jàpp ko. monsieur ni ngay waxee nii dafa mel ni ngay bañ ko lay mere quoi. ni ngay waxee nii ni yow ñeme woo laal affaire bi quoi. question ñeme parce que man dama lay wax benn affaire nga man euh, dama lay wax ragal amul sama famille. waaw dama lay wax rek ragal amul sama famille. waaw man ku ma xam dëgg xam na ni man ragal amul sama deret mm-hmm. man sëtu Cheikh Omar Foutiyou Tall la waaw donc du ma ragal mais wax bu nekk dafa am waxam mm-hmm. danga ma laaj dama lay tontu ci li ma xalaat ci li ma xam mm-hmm. sama gis-gis la mën na nekk gis-gisu keneen keneen mën na meneen gis-gis moo tax ma ne la bi nga ma waxee début bi dama la ne loo gis am na problème hmm? nekkuma si biir biir nag pour mën a wax problème parce que dañ ne ne nettali sa géntu moroom naa fexe la donc mais nekk naa ci biir parce que acteur la ci li ma gis en tant que acteur foofu laay waxee moo tax ma ne la lépp loo gis tolluwaay la foofu laa doon eggalee tolluwaay bi mooy tey dafa jot Sénégal professionnaliser li ñuy def on doit aller vers le professionnalisme et nekkul rek ñun doomu Sénégal yi juge fii dem bitim réew jàngi jongante ñëwaat pour indi fi professionnalisme pour benn durée bu ndaw déedéet man dama gëm ni professionnalisme attitude la ba pare xel la ba pare tolluwaay la état d'esprit foofu laay waxee nii tolluwaay la te dama gëm ni tey jii am nañ ay techniciens yoo xamante ne jàng nañ dem nañ gis nañ xam nañ ñëw nañ war nañ ko mën a utiliser mais damay à chaque fois dafa baax tamit ñuy mettre ni uude da nga koy jox lu mu ëw menuisier da nga koy jox lu muy raboter lu muy daaj maçon nga jox ko lu mu tabax